niki alqaariatu mal qaariatu alqaariatu mubtada la maa di mubtada alqaariatu ñaareel di xabaram jumla ji nekk xabaru mubtada mu jëkk mi te gisuñu ci damir bu ci jëm gisuñu ci dara waaye takraar nañu lafzu mubtada mu jëkk ma loolu kon tax na maanaam mubtada ma ma nga ca xabar ja wala ishaara ilayhi ismul ishaara ju ca dellu niki qiraatu rafi fi qawlihi taala wa libaasu taqwa zalika xayrun libaasu taqwa mubtada la aywa xabar ji mooy jumlay lisim ji ñëw zalika xayrun mubtada xabar benn damir delluwu ci takraar wuñu lafsu libaas dégg nga waaye zalika isharatun la ilayhi ismu ilishaara ji ma ngi dellu ci libaasu loolu te mooy ilishaara ji ma wax te libaas bi ma wax kooku kon dugg na ci li ibnu malik ni na ëmb maanaam na jumla ja fokk mu ëmb maanaam mubtadam pour yaatal ko bëgg yooyu la bàyyee xel damirama ca ne wala dañoo takraar lafs ba wala ismul ishaara wala sax maanaam jëmmu la jëmmu mubtadama mooy jëmmu xabar ja wuute wuñu dara loolu moom la ni wa in takun iyaahu maana niktafa biha ka nutqi llaahu xasbi wa kafa wa in takun bu nekkee jumlay xabar iyaahu doon moom mubtadama maanan ci maana jumlay xabar ji mooy mubtadama ci maana rek yokku ca dara wàññiwu ca dara kon iktafa mubtadama doyloo jumla ja wëcc raabit du mu doyloo kon bihaa ca jumla ja niki nutqi sama kàddu day li ma wax lan allahu yàlla xasbi aji doy lam seetoo mubtada xabara ngoog mooy xabaru nutqi damir nekku ci ismul ishaara ju ca dellu nekku ci takraaru lafz bi nekku ci ndaxte allahu xasbi mooy nutqi sama kàddu nutqi sama kàddoot mooy allahu xasbi yàlla doy na seetoo ni kon mubtada mi mooy xabar ji ci maana wa in takun bu nekkee moom jumlay xabar iyaahu di mubtadama di moom mubtadama maanan ci maana kon iktafa mubtadama doyloo bihaa ca jumla ja walis raabit walis xabar ni ki nutqi sama kàddu ñu ne waaw nga ni allahu xasbi bu la neexoon wëlbati ni allahu xasbi sama kàddu nutqi yàlla doy na ma nutqi mooy sama kàddu awa wal mufradul jaamidu faarigun wa in yushtaq fa huwa du damirin mustakin ba tey wal mufradu xabar danoon dana nekk mufra yaa mufradan yaati wa yaati jumla la waxoon wal mufradu xabar jay mufrad al jaamidu jay jaamid xare wuñu ko fenn kooku faarixun min taxamuli damir kooku féex na ci yore damir zaydun rajulun karimun rajulun benn damir nekku ci buy dellu ci zayd du dëgg waaye wa in yustaqa bu fekkee mufrad dañu ko du jaamit dañu ko xare ci fi'l muy sifa fa huwa moom fala budda zo damirin mustakin boroom damir ju ca nëbbu la soo ko fa gisu lépp nëbbu na fa soo noon zaydun karimun karimun ña ngi ko xare jaamit mustaq la ci karam la jóge kon huwa lay nëbbu moos mu dellu ci zayd xabar bu dee mufrad su mufrad ma dee jaamit yorul damir waaye bu fekkee mustaq la ma ngi yor damir ju ca dellu foofa zo damirin mustakin waaye nag damiram ja wa abrizanhu mutlaqan xaytu tala maa laysa maanaahu lahu muhassala wa abrizanhu feeñalal damir ja mutlaqan suyaboo lënt am na wala amut xaytu tala fu fa xabar ja toppee maa mubtada moo xam ni laysa maanaahu déet maanaam xabar ja muhassalan di lu ñu amal lahoo ñeel ko xabaar ji xabaram la ci leeraab waaye du at du dellu moomu ko du dëgg niki soo ne soo ne tey masalan zaydun hindun daaribuha huwa zaydun hindu daaribuha huwa zayd mubtada la hind di beneen mubtada du dëgg daaribuha aji dóor la ko huwa moom fii lënt amu ci soo ne zaydun hind de daaribuha aji dóor la ko danañu xam ne zayd dóor haaji danañu xam ne ci hind rek la dellu ñu da xam da nga ne zayd moo dóor hind zayd hind daaribuha aji boo ci yemoon bañ a andi huwaat du tee ñu xam ko waaye fokk huwa ji day dikk moo taxoon mooy mutlaqan lënt am na wala amul comme fii rawatina ak su lënt doon am fii boo ne zaydun hindu daari bu xaat danañu xam zayd zayda dóor hindu ndax xaaji du dëgg wala nga noon hindu zaydun daari batu hoohiya ba tey taanis gi danañu xam ne hinda waaye du tey rek comme si fa si dafa daw ci kudul borom ah du dëgg zaydun du dëgg hind mubtada la daaribuha xabaru hind du dëgg te nag moomu ko defu ko sëyda ko def kon kon talaa topp na xabar ji ni ki daarib maa mubtada mii nga xam ne moomu ko te mooy hind xabaru hind waaye du du du sifaam sifa sëyda du dëgg kon nañu feeñal damir ji fii sax lënt amu fi waaye bu lënt amoon mu rawat fa inna daaribuha xabaru hind wa huwa qaimun bi xayriha wa huwa zayd dégg nga wala labsa fihi lënt amu ci dégg nga Euh, kooku soo ko waxee boo ko feeñalul lënt am soo ne zaydun amrun daaribuhu dañuy defee amra dóor zayd kooku nag moom lënt gaata waaye ñooyam moom mut mooy mutlaqan ji lënt am naam amut su fekkee mubtada mi sifa si mu si xabaram dégg nga du sifaam ñi moom ci boppam da damir ja feeñ bu lënt amee bu lënt amul misaal mu jëkk mi lënt amu ci waaye bu ñaareel boo noon zaydun amrun daaribuhu dañuy defee ne amar moo daar zayd faw waaye nag soo ne amrun daaribuhu huwa ñu ahu zayd male moo door xam kaanuha wa qad alimat bi kunhi dalika adnaanun wa qaxtaanu xaw mii samay bokk mubtada la zural majdi ay njobaxtanit tedd nga beneen mubtada nga baanuhaa ñoo ko tabax lu dëgg dañu waroon ni baanuhaa hum dégg nga xanaa seetal xanaa dafa la ni loolu moom du kile dellul gannaaw ma ngo hum la waroon wax baytu mi nag andiwu ko ah li am ni lépp ndax xaw mi zoral majdi baanuha tabax nañu ko waay waay njobaxtan bi kay moom la ñuy tabax xawmu bi kenn du ko tabax kooku lënt du fu am moo tax andiwuñu ko waaye nag dañ ko waroon andi de xanaa way wee tax dañoo waroon ni baanuha hum ndax dafa ni abrisan hum mutlaqan bu lënt amee bu lënt amul am nañu ni déedéet hada laysa shahidan li anna baanuha laysa ismal fail doo ko firee aji tabax way tabax lañu ko baa min fiilu maadin min baanahu yabuunuhu bi maanaa faaqahu yafuuquhu am nañu wax ni maanaa dafa ne xaw mi samay bokk zoral majdi ay njobaxten tàddga baanuha kawe nañu ko gën nañu koo kawe maanaa faaquha am nañu wax loolu daal ni ni baytu bi sax bokkul ci waaye nag baanuha ñoo di way tabaxam muy ismu faayil jam u baanin kooku nag moom bu boobaa ñu ni hum jooji asaf nañu ko ngir ñàkk lënt waaye nag xàqam nag way wee waaye xàqam moo doon ñu andi ko rek abrisan hum mutlaqan dégg nga léegi wa axbaru wa axbaru bi zarfin aw bi xarfi jar naawiina maana kainin aw istaqa wa axbaru danañu xabaare ñoom arab ci seen lamiñ wala ñoom naxwu ci seen atte te leen la arab a wax naxwu yi bi dikk andi atteem kii nangam la kii xabar la kii arab moom xamul yooyu de dafa wax ak lamiñam rek wa axbaroo xabaara nañu bi zarfin ci zaraf aw bone zaydun fi daari aw bi xarfi jarin maa majroor yi ni ki zaydun maanaa zaydun indaka wala majroor ni ki zaydun fi daari naa wii na mbir mu ñuy yéena ñuy nattale maanaa mutaalliqihima mutaallaqihima almahduf mu seen ajuwaay bañ maanaam seen ajuwaay ba ñu fa adaf la ñuy nattale te moo doon kaainun fa fa yakunu alxabaru min qabili almufrad wala istaqarra fa yakunu alxabaru min qabili ixbaari bil jumla soo nattalee kainun kon sa xabar ji xeetu xabaru mufrad la ndax kainun mufrad la waaye day na bëhuwa soo nattalee istaqarra saydun kainun fi daari wala saydun istaqarra fi daari kon soo nattalee istaqarra xaba fi daari jooju jumla xeet xeetu jumla la istaqarra huwa fi daari dégg nga wala yakunu ismu zamanin xabara an juthatin wa in yufid fa axbira wala yajuusu du dagan libtidaa maanaa du dagan wala yakoonu du nekk ismu zaman ismu zaman turu jamono zarfu zaman du mën a nekk xabaran di xabar an jussatin ci jëmm maanaa an ismi aynin la jublu ñu ne nag cey waaye ibnu Malik nag jëfandikoo na jussatu fii te cosaanu jussatu mooy jismun xayru xay ni ñu naa ne maata fulaanun fa xumilat jussatuhu ila al maqabir diw deena ndeysaan jussa ba jëmmam jëmm nga ñu fab yóbbu ca bàmmeel ya gissatu daal maanaa ji yaram wu nekkatul di dund moom lañ ci moo ca ëppoon ci moom lañ ca daan wax ibnu malik nag jublu na ca bi maanaa ismu ayni rek la ci jublu rek maanaam kenn du ni zaydun andi al yawma muy xabaram noonu kon du am benn njëriñ li anna nisbata zaydin lil yawmi wa lil amsi waaxid benn xusuusi amu ci kenn du ni zaydun al yawma muy mubtada xabar wa amma bu fekkoon ismu maanaa la nag ni ki da nga ne assawmu koor gi mbaa alqitaalu xeex bi ñu ne nga ne al yawma yawmal jumuati la alqitaalu yawmal jumuati assayru gadan kooku ndaxte mubtada mi ismu maanaa la masdar masdar yëpp ismu maanaa la yëpp waaye nag ismu ayn ni ki jëm sayd wala faras kenn du ne alfarasu yo al yawma alfarasu yawmal jumuati waaye soo noon alqitaalu yawmal jumuati mu baax wala yakunu ismu zamanin xabaran an jussatin wa in maa lam tufit nag wa in yufit bu amee fayda kat fa axbir xabaara bihi ci moom du dëgg bu amee fayda kon mën nga ko ni ki ñuy wax alwardu ayyaar alwardu ismu ayn la ayyaar ci weer yi ajam yi la dégg nga ndaxte dafa doon ismu ayn joo xam ne yatakarraru wujuduhu fa asbaha al maana ward léeg-léeg mu am léeg-léeg mu rak léeg-léeg ñu ñun tool yi amagul ward léeg-léeg mu am ko léeg-léeg mu daal di niroog ismul maanaa ci tëjëd loolu maanaa kon ñu di ko taawil xuróojul wardi mbaa wujoodul wardi fii ay yaar mooy maalam tufit bu jëriñee comme loolu nag baax na maalam tufit ah ah wa in yufit bu fekkee jëriñ na faxbir xabaareel bihi ni ki misaal moomu wala yajuusu bat ليلة الهلال لأن الهلال يتكرر وجوده اسم العين لا موم الهلال موي مبتدا مي. اسم عين لا بجم جي ني تكبت الليلة دي ظرف تيول لولو داغان نان داخ اسم عين جي يت بتكرر الوجود أشبه المعنى دو دغ لولا تخ مو داغان ها ها آه. آه. شهر الربيع شهر ربيع رطب ma ngi am ci ñaari weeri rabi rutab ismu ayn la jëmm la mën nga ko laal chahray rabi zarfu zaman la te mooy xabar ja loolu nag am na faida ndax comme rutab amam day luy rag la léeg-léeg mu am léeg-léeg du am léegi boo ne a rutabu chahray rabi moo ñu daal di maanaam yoojalu fi chahri rabi mu am maana ba tey leneen walaa yajuusu du dagan libtidaa u tàmbali def mubtada bi nakirati ci nakira ñu ne faaw mu ne maalam tufit feeg amul faayida ni ni nga jàngoon ca fële ca muqaddim su amee faayida ci genn anamu ifaada fa axbir bihi ni ki misaalam ni ki inde zeydin aji nekk la fi zeyd namiratun ab mbàjj xeetu tap namir càngaay yu tal yooyu namiratun nakira la dégg nga doon mubtada waaye nag ba nga xamee ne zaraf see xabaram te laaf zeyd daal nay dagan ñu def ko mubtada rek ndax am na taxsis comme zayd ku ñu xam la moo tax soo bëggoon ni namiratun inda rajulin du dagan du dagan ndax amul faida waaye inda zaydin nu xam zayd ah zayd da xam nañu ko ku dem fa moom gis namiratu boobu kon jumla ji am faida inda zaydin namiratun maanaam zarf sarafay xabaram joo xam ne am na taxsis ndax laa fegee ko may taxsis te dawlu ko kon mën na nekk waaye nag it bul wax ni namiratun inda zaydin wala listifham dawlu ko ni ki hal fatan ndax amul aswaay fiikum june fi yeen mu dagan fatan nakira la wala xarafu dàq dawlu ko ni ki maaxillun déet ab xarit lanaa ñeelnu wala dangaa wasafal nakira ba fa taxassasa bil wasfi ni ki rajulun waaye kira mina min al kiraami jude aji bokk ci way tedd ñi indanaa fi nun la nee nañu yaani ibnu malik limaamu yaxya annawawi tilmidahu li annahu baata indahu tilka alleylata allati allafa fiha hada al mahal min al alfiya nee ñu guddi gi ibnu malik taali di taalif ci alfi bi guddi gi ca la doon taalif diggante bi fekk limaamu yaxya nawawi taalifam bu siiw bi de naxya al muhaddis nax nawawi nee ñu ma ngi fanaan fi moom mu faf daal di ni wa rajulun min al kiraami indana waa ju bokk ci gaa yu baax yi ma ngi fi nun tey wala dafay aamil nakira ji dafa jëf fa inna nakirata yataxassasu bil amal ni ki raxbatun ak bëgg xemeem fil xayri ci yiw xayrun yiw la raxbatu nakira la waaye fil xayri ci moom la aju aju majruur ci ci amil bi manzilati amali waaw dégg nga majruur bu ajoo ci amil bi manzilatil amali xam nga marartu bi zeydin bi zeydin ci marartu la aju fii mu ne bi zeydin am na maanaam mafuliya soo ko mënoon nasab da nga naan marartu zeydan du dëgg marartu jëf na ci aju firi fii ji ci moom mooy dalil ni jëf na ci ak nasab gu ñuy nattale la raxbatun fil xayri xayrun kon fil xayri daanaka mafoolu bihi la ci raxbatu raxbatu nasab na ko ci wàllu taqdir wala mu laaf amalu birrin jëfi yu yasiinu day rafetal amalu birrin ni ki kee misaali woon ko xamsu salawaatin katabahun amalu nakira la waaye laaf birrin moo ko may taxsiis amalu birrin yasiinu wal yuqas nañu qiyaas nag maalam yuqal ni ki boo ca atafoon ka at fi saalihin lil ibtidaay loo xam ne war na mën a nekk mubtada nga atafoon ko ci ki ni rajulun wa zaydun xaadiruna xaadiraani am kenn man yàqu waaw ni ki tey umum bi man képp koo xam ne li si mu sart la mooy mubtada bi ana jawaabam nag ana xabaram jumlay sartam ak jumlay jawaabam seen boole mooy xabar ja de waaye man nakira la dégg nga waaye nag charte la man ayu rajulin daf mel da nga ne ayu rajulin yaqumu aqumu maahu man yaqum aqum léegi soo ko suñu la laajee luy mubtada bi nil man kese ana xabaram nga ni jumlay sartam ak jumlay sawaab majmuuhuma mooy xabar ji léegi nag am na ci ñenn ci gaa yi nga xam ni seen ku nekk seen manxa fa mu jublu nit fa mu jublu ay xalaatam féete fa lu yëngu ci la koy baase lu mel ni ahlu laayi ahlu tasawuf am na ci kenn kuy firee ni dégg ngeen ibnu malik ni maanaa yéene ju baax maanaa innamal amalu bi niyaat yéene ju baax rek mooy jëf amaa jëf ji ci boppam ma ngi mel na couleur goo couleure sa tabax mu rafetal ko rek waaye jëmmu tabax bi moo am maanaa kon moo tax loolu la misaal ni raxbatun fil xayr ibnu malik ne ak bëgg lu baax rek xayrun mooy yiw bëgg lu baax ci boppam mooy yiw wa amalu birin ama def jëfi yiw yi ci boppam yësiinu day rafetal rek moom dégg nga ni mu ko firee soppi maanaama wëcc jële ko ci ndax wu jëme ko ci jële ko ci maana tasawuf raxbatun fil xayri bëgg yiw rek xayrun mooy yiw amalu birrin ama nee na jëfu baax moom yësinu day rafetal ci kaw rek waaye waaye bëgg-bëgg gën ko bëgg rek loola loola mooy yiw wa maanaam yéene ja nga yéene mooy yiw wa jëf ji dafa ko ra- mel ni ku lóor la ci kaw ku nekk ak sa manxa ibnu malik moom nax woo ko tax de mu ne wal yuqas maa lam yuqal am kii ataamin an yakoona jawaaban ni ki bu ñu noon man indaka fa taqulu rajulun ay indi rajulun jawaab la am na taasi an yakuna aamatan wala mu nekk aam ni ki kullun yamuutu kullun nakira la waaye li muy umum tax na ko am faayda kullun yamuutu fukkeel ba an yuqsada biha tanwiic ni ki tey fa aqbal fa aq fa aqbaltu zaxfan ala rukbatayni fa sawbun nasiitu wa sawbun ajur lu dégg kooku kon tanwi ah benn séer bi dama ko fa sawbun labistu wa sawbun ajur tanwi boobu maanaa andi na yaari xeeti jëfandiku sol bi kii bi kon naka noonu ñuy wax taqsim it loolu daal mënoon nga ko tudde bu la neexeet ni taqsim bi moo ko def sawbun ab séer labistu dama ko sol wa sawbun ab séer ajur dama ko wet dégg nga fukkeel ak benn nee na bu dee du'a ba tey ni ki salaamun ala ali yasin salaamun ak mucc yàlla na nekk ala ali nakira la waaye du'aaw bi ndax arab bépp maanaa yu xassis bépp maanaa bu aju ci nakira yu xassisuhu ni ki mu doon ñaan lañ ca jublu buñ ca jublu woon yéem noonu ah wala fii nekk ca maana taajub naxwu maa ahsana zaydan maa ay shay'un azimun maa nakira la doon na mubtada nag ndax taajub gi maa mbir mu màgg axsana rafetal na zayd jumlay axsana zaydan mooy xabar wala mu nekk ah, ah, ah, xala fan min mawsuuf ni ki muminun xayrun min kaafirin dégg nga muminun ab aji gëm muy nakira an yakuna kii laa wax xalafan muminun xayrun min kaafirin ma comme comme yow mu doon wax rajulun xayrun min imraatin rabi an yakuna musagaratan ni ki rujaylun as nguur indana ma ngi fi nun kooku dagan na ndaxte nakira gi m- ma ngi mel na dafa ànd ak sifaam te nakira yataxassasu eh, bil wasfi ni ki nga waxoon ci rajulun min al kiraami indana soo ne rujaylun dafa mel da nga ne rajulun saxirun indana Hmm. fukkeel ak juróom mooy an yakoona min maanal maxsuur ni ki charrun aharra zanabin charrun aw ay dong aharra moo xiiruloo zanabin borom sell mooy xaj mel ni da nga ni ah. ana mu ah, benn ba mooy waaw xaal dawlu ko ni ki sa waxa bi baytu woowu ci muqaddima saray naa wa najmun qad adaa fa musbada muhayyaaka dégg nga axfa daw uhu kulla shaar saray naa rañaan nanu ci guddi wa najmun te mbir mum ab biddéew dafa ànd ak waawu xaal najmun mubtada la si aw fi sudoori jumlatil xaali ata la la la muqaddima o nekki rañaanan wa najmun qad adaa am fekk fekk ab te bi fekk ab biddéew ngi doon leer waaye fa musbada muhayyaak diiru li sa xar kanam bi feeñ axfa nëbb na daw uhu sa leeru kanam kulla shaariq lépp lu doon leer ngi dem rek naka noonu su fekkee dañ caa ataf dañ ko ataf ci maarifa ni ki zaydun wa rajulun qaa'imaani zaydun mubtada la rajulun di nakira di mubtada moom it waaye da nga ko ataf ci maarifa bi moo tax wala mu nekk di war ni ki tamimiyun wa rajulun fi daari wala ñu ataf ca mawsuuf ba tey ni ki rajulun wa mraatun tawilatun fi daari wala mu nekk mubhama rek ni ki waxu ibrul qays murassaatun bayna arsaaqihi bihi asamun yabtaqi arnaba xasidaam boobu murassaatun lu ñu fixé lu ñu takk nakira la dégg nga du dégg luñ ca jublu lëm ko la ñu bëgguñu ko leeral te wa huwa min maqasidil uqalaa'i ibham ci uqalaaw yi di jublu ci seen wax la mu daal di doy faida wala mu dikk ci gannaaw lawlaa nag ni ki lawla stibaarun la awdaa kullu zi miqatin lama staqallat matayaaunna bi zuuni wala li zaani lawla stibaarun su dul woon ak baatu lawlaa nakira bu ci toppee mën a doon mubtada ndaxte ba ngi mel ni nakira ji sukkandiku ci ak dàq wala mu dikk gannaaw faawu jawaab ni ki in zahaba ayrun fa ayrun fir ribaat su su mbaam demee meneen mbaam a nga ca yeewukaay bi fa ayrun fir ribaat loolu mu nekk kon baada fail jawaab ah jasa mooy jawaab rek ah, wala mu an tadxula ala nakirati laamul ibtidaa ni ki la rajulun qaa'imun wala an yakuuna baada kam ni ki tey kam ammatan kam ammatun laka yaa jariiru wa xaalatun fadaa o qad xalabat alayya ishaari kam ammatun bare na ab bajjan nakira la laka yaa jariiru faras daq mooy ak ŋàññi jariir foofu wa xaalatun ak tànta fadaa u bu lunki tànk tànk ya dafa mel ni lu làggi las las jamaal qad xalabat natt naa ishaari sama gëléemi rattu alayya jamaal aslu fi l axbaari an tuaxara wa jawasu taqdima id laa darara famnachu xiina yastawi ljuz'aani curfan wa nukran aadimay bayaani wal aslu lu doon cosaan fi l axbaari ci xabaar yi an tuaxara ñu mujje ko anil mubtada'aati lu doon cosaan ñu mujje xabar yi mubtada yi dawlu ko ndax mubtada maxkumun alayhi dégg nga wal xukmu ala shay'i far'u tasawwurihi atte lëf dafa war a topp ci gannaaw soo tasawuree lëf la maanaa teewlu ko ci sa xel ba xam na mu demee ñu door na mu mel ñu door a wax atte ba looloo tax lu doon cosaan ci mubtada xabar ja mujj ko waaye nag teewul wa jawwasu daganal nañu a taqdima jiital xabar id la darara fa nga xamee ni lor nekkul ci jiital ga maanaam lënt du ca ne ndax am na xabar yu soo ko dawalee ñu defee ñooy mubtada mu lëntoog mubtada te kon maanaam jumla ja soppiku na complète de ah waaw ah zeydun axooka du mubtada ak xabar la ah su fekkee ne da nga bëgg ah, ah, ji- waa ji nga xam ne ah, maanaam kon daal na nga ko waxee noonu ndegam mooy mubtada bul ni axooka zeydun def ndax kon dañuy defee axookaay mubtada te ñaari jumla yi du bokk maana ndax zeydun axooka yaa ngi koy wax ki nga xam ne dafa xam zeyd waaye xamul woon nag ni bokk nañu dara nga ni ko zeydun axuuka axuuka zeydun da nga koy wax ki nga xam ne xam na ni am mbokkam a ngi ci daara ji dégg nga waaye xamul ku mu ci gaañ gis na gaañi rek nga ni kooku da nga ko naan axuuka zeydun xar nga xam nga ni zeydun axuuka ak axuuka zeydun bokkuñu maanaa kon moo tax te ku ci jiitu rek dañuy defee mooy mubtad te kon maanaa benn bii la lay jox loolu kon darar daal di am la maanaa lépp sa lënt famnaahu tereel nag taqdimul xabar xiina yastawi fay yem al fa nga xameen dana yem al jusaani ñaari xaaj yi ñaari xaaj yi jumlay lisim yi te mooy mubtada mi ak xabaram bu ñu yemee urfan ci doon ñaari maarifa wa dégg nga wa nukran ak bu ñu yemee ci doon ñaari nakira bu ñu yemee ci ñaari maarifa zaydun axuuka jooju misaal la ci suñu yemee ci ñaari nakira mooy mel na nga ni afdalu minka afdalu minni afdalu minka afdalu minni du dëgg du dëgg wala noo ko mën a waxee afdalu min zaydin afdalu min amri kon kii mubtada na dawlu faw afdalu minka afdalu minni ak afdalu minni afdalu minka bokkuñu a ndax boo fekkoon nit ngay wax ak moom ni ko yow day ku la gën moom a gën afdalu minka afdalu minni ah waaje kontaan lay gën a jegees mer loolu kenn du ci mer ndax xam na ni yow wàccee nga sa bopp ba woon ko ni yee yow de ku la gën man moom a gën waaye soo ko ni woon nag afdalu minni afdalu minka ku ma gën moo la gën loolu wax ju ñagas la di nga xam ni maanaa yi bokkul bon te te it li ko def mooy ko dawal dañuy defee mooy mubtada dootu ñu xam ni yow yaa ngi wàccee sa bopp soo ko nee ku ma gën moo la gën kenn du dégg jooju wax defe ni wàccee nga sa bopp di suufe dañuy defe da ngaa bëgg a rëy lu ci kaw moom noo tax mu ni bu fekkee ñaari jus yi ñoo yem ci maarifa wala ñu yem ci nakira fekkit nag ba ñu yemee ba yegal xaala kaw ni hima aadimay bayaan yi ñu di way ñàkk dalil bu leen biral ba tax ñu mën a xam eh, la ca def amaa bu ñu amee lu leen biral bu yeboo ci maanaa la rek du teemu doy kon bon bu la neex ku la neex jiital bu fekkee koo mën jiital ñu xam ko ni ki misaalu shi- baytu wow le banuuna banu abnaa'ina wa banaatuna banuhunna abnaa'u rijaali l abaa'idi banuuna sunuy doom banu abnaa'ina moo di sunu doomi doom yi sunu sët yi yi sunuy doom jur sunuy doom lañ wa banaatuna sunu doom yu jigéen yi ñoom banuhunna seen doom ya ñu jur abnaa ur rijaalil abaidi ay doom yi yeneen góor yu sore la ñu doon du- bokkuñ ci sunu askan waaye nag kon doom bu góor ak bu jigéen la ni yemuñu ndax sunu doom yi yi sunu doom yu góor yi li ñuy jur sunuy doom la sunu banaat yi nag li ñuy jur doom yi góor yu sore la moom dafa bëgg a bañ a yemale doom ju góor ak ju jigéen kon